bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa mbokk yi ñi ngi dikkati ak yeen ci seen nafile bis bi tey jii nag di ñaari fan ci weeru koor dëppoo ñeenti fan ci weeru avril ki leen koy dëgtal Mouhamadou Lamine Niang Touba Cheikh sahibu mbacke radiallahu anhu wax ci xoratul ayni ne ku julli guddik ñetteel ga ci weeru koor tamay guddi gi ñu dëgmal juróom benn rakan bi max na ñetti salmal lay doon ñaari rakan yoo xam da ngay salmal ba mat ñetti salmal rakan bu ci nekk nga jàng fatihatul kitab benn yoon teg ca inna ansalnaahu fi laylatil xadri ba saar wi jeex ñeenti yoon teg ca xul yaa ayyuhal kaafiroona ba saar wi jeex ñeenti yoon nee na loolu ku ko def dana mel ne ku goreel junni jaam ak ku jox ndogu junni ñu woroon wodd junni ñu rafle léeg-léeg junni ñu xiif te dees na ko ca bindal itam tiyaaba ju toll ne limum ñanaaw yi ci àdduna yëpp te dees na ko ca defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax ak ñi dee ci xare te deesu ko fitnaal ci bàmmeelam te deesu ko ca mbugal itam lu am solo la yàlla ñu yàlla xéwal ñu def ko te bu ñu ko defé mo nangul ñuko ko làqal ñu fi yaqdu du bi jeh rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala